sëñ bi alxuraan di muy jàngalu maa ngi ciy kontaan. ñun ay taalibe rek lañ amuñu lu dul Sëñ Tuubaa te yaakaaruñu lu dul Sëñ Tuubaa kon nag sëñ bi bu joxee ndigal kon jëfe rek moo ci war jàmm rek ak wote di ñëw te kenn ku ne ànd keekub yar ndax kenn amul lu sa ndigalub sëriñ. sëñ bi nag moom jàmm rek la bëgg lim ñu bëggal nag yàlla na ko yàlla def mais ku ne rek ki nga war a voteel bu élève vote jotee nga dem voteel ko ci yar ak teggin mais li ñu yii ñu def nii moom mën na cee ñàkk ndaxte du du yar du teggin. gaa yit dañuy bëgg a bokkaat kenn ku ne dangay bëgg a nekk njiitum réew kon nag fala force dañuy xëccoo waaye ne na lépp doon jàmm daal na lépp jàmm ndax jàmm ci lañ lépp mujj ci la yal na suñ waa defal na ci jàmm ak ndox mu sedd guyu nag te muy woote woote jàmm ndax sëñ Muntaxa lii mu def moom kenn jiituwu ko ci jàmm wàcce alxuraan jàngee xasaayit te moom mbakke Mbàkke ñoo ko ñaan mu yàgg fi ndax sagub yoonu murit la si